à CTV, la chaîne des patriotes. À se renforcer, à renforcer son unité, c'est déjà acquis au niveau de l'intercoalition Walou-Yéwi. Nous avons trois autres coalitions qui sont victorieuses, qui ont des, des, des députés. Ces coalitions ont battu la campagne sur les mêmes thèmes que Walou-Yéwi, sur les thèmes de rupture avec l'Assemblée nationale actuelle. Ils ont promis, comme nous, au Sénégalais, les changements au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous les appelons à se constituer avec la grande majorité de, euh, de Wallou Yewi, à aller ensemble. Ensemble, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale pour entonner, pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais, c'est-à-dire peser sur la marché du pays et faire au niveau de l'Assemblée nationale l'ensemble des réformes euh, que nous avons euh, promis au Nous appelons même tous les autres députés, nous le disons, même les députés qui sont au niveau du Benno Yakar, certains même nous font déjà des clins d'œil, nous les appelons, appelons à rejoindre la majorité. Cette majorité voulue et, et produite par le Sénégal. Nous les appelons à nous rejoindre pour que au niveau de l'Assemblée nationale, nous pourrions, nous puissions entonner et déclencher l'ensemble des mesures nécessaires pour que le Sénégal puisse puisse, puisse déclencher les changement voulus. parce que nous avons eu les mêmes thèmes pendant la campagne électorale. Nous avons tous parlé de rupture, nous avons tous eu des programmes pour le Sénégal de changement. Alors, à présent, maintenant que nous avons cette majorité, l'opposition euh, il faut donc que cette majorité se renforce et que l'on puisse donc euh, l'exprimer à l'Assemblée nationale. Nous avons battu le Benno Bokyakar, Nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Il faut donc que nous ne décevions pas les Sénégalais. Alors, je voudrais dire aussi que notre stratégie a été imparable. Et, corriger un peu les, les, les chiffres de, de la Commission nationale. Vous savez que la Commission nationale a donné un résultat, a donné un résultat, euh, comment dirais-je, officiel. Ce résultat, il l'a basé sur les bannières. En disant par exemple que la coalition Wallou a eu euh, niveau des sièges majoritaires, 8 au niveau des sièges proportionnels, ce qui lui fait 24. La coalition Yewi Askenwi 39 euh, au niveau des sièges majoritaires, 17 au niveau des proportionnels et 56 au niveau du siège. Ça, c'est ce que au niveau des bannières. Par exemple, si vous allez à PIC à Québec, deux députés, euh, pour, euh, on fait la pour deux députés. le Wallou a gagné les deux députés mais dans ces deux députés il y a un député Wallou et un député Yewwi alors donc si on fait maintenant le décompte politique de l'ensemble des voix que nous engrangeons dans les bannières le décompte va vous donner 27 pour la coalition Wallou et 53 pour la coalition Yewwi Askan Wi le compte reste bon 80 Alors donc, pour vous en rendre compte, il faut aller dans les bannières, faire le décompte. Par exemple, Pékin, il y a 5 investis, il y a 2 qui sont du Wallou, 3 qui sont du Yévi. Si vous allez à Mbaké, par exemple, il y a 2, il a 5 députés pourvus, il y a 2 qui sont 2 députés du Wallou et 3 qui sont du, du Le décompte officiel met tout dans l'escarcelle de Wallou. Donc, c'est le décompte politique qui vous donne le résultat, mais ça ne change rien au plan du chiffre global. Alors, pour dire donc que notre combinaison a été victorieuse, nous avons empêché au Benobok Yakar de rafler la mise au niveau de tous les départements. Nous était donc quelques ratés, on n'en serait pas là à, à, nous disputer deux voix de différence. Ils seraient à Ardo depuis longtemps, ils l'ont été même. Alors, c'est dire donc que euh, nous réaffirmons encore notre appel à l'ensemble de l'opposition pour l'unité. C'est déjà fait au niveau de Yewi Wallou, nous sommes déjà ensemble, mais il faut aussi qu'on appelle les autres coalitions, Buntubi, AR et euh, Bok Gisgis, et les serviteurs, à rejoindre la grande opposition. Ils élissent déjà ces coalitions parce qu'elles ont battu campagne sur les mêmes thèmes que nous. Les Sénégalais leur ont fait confiance, leur ont donné des députés. Il faut donc que cela s'exprime dans la gouvernance prochaine de l'Assemblée nationale. Voilà donc moi ce que, euh, ce que nous voudrions vous dire. c'est la même chose. Lors de ces élections, nous avons vu parmi les difficultés le barrage qui a été fait pour certains patriotes par le parrainage. Le parrainage a empêché à beaucoup de Sénégalais d'aller de, de, à la conquête des suffrages. Certains sont venus appuyer l'opposition pendant la campagne, notamment notre frère Bougan Gay. Nous lui rendons hommage aussi, cette victoire aussi est la sienne, parce qu'il a aussi travaillé avec l'opposition pendant euh, cela. Et comme nous l'avons dit tous ici, parmi les enjeux de ces élections, il y avait aussi la question du troisième mandat. Tous les Sénégalais l'ont décrié, nous avons aussi fait, euh, fait campagne autour de cela. Et je pense que qu'aujourd'hui, c'est une question qui est derrière nous. Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu kon ñëpp ñi nga xam ne si ñëw nañ fi tey muy journaliste yi ak sénégalais yi nga xam ne si yëpp ñu ngi seetaan di ñu déglu ci sunu tur ci turu président maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne si moom mooy bopp coalition bi. mu ngi leen di nuyu di féliciter sénégalais yëpp ci taxawaay bi nga xam ne si am nañ ko fan yi di nuyu di gërëm itam sëriñ si nga xam ne si yëpp délégation yi mu leen yabaloon jot nañ recevoir nañ yéen ñaanal listam yi di wax rek ni li ñu dund fan yi yëpp ñoo ko bokk dund xam ngeen ko mooy élection yi ñu dugg gis ngeen ni opposition bi dugg na ci ci ay difficulté difficulté yi ñu ngi tàmbalee d'abord ba ñuy laaj fichier électoral mënuñu ko am ngay dem élection ci tëñëxu Euh, ñoo indi parrainage bi mu nekk encore difficulté bu rëy bu nga xam ne si ñenn ci ñun mujj ñu ko jàll ay sénégalais yoo xam ne si comme nun waroon nañu mën a dem ci élection yi parrainage bi nekk difficulté ba ñu jógee ci parrainage bi dugg ci difficulté liste yi ngeen gis problème yi ñu am lépp ci liste yi ay genn wàllu liste ñoo dem ci élection yi alors loolu yëpp nekk ay difficulté yu nga xam ne sii dund nañ ko ñu jàpp suñu leader yi tëj jàpp nañ fi ay député Déthié Fall jàpp maam jaara Fam jàpp Cheikh Abdou Bara dool ñooñu ñëpp ñu tëj leen te ñu nekkoon ay candidats yoo xam ni si déjà déclaré alors yooyu yëpp nekk ay tolof tolof yoo xam ne opposition bi dund na ko avant campagne bi di ubbi mais loolu yëpp teewul camp opposition en tout cas nun wàllu ak Yewwi ñu jàpp ni dañoo war a dem élection nañu dem defi campagne malgré difficulté yooyu yëpp ndax yaakaar nañ ni bu ñu waxee sénégalais yi danañu déglu loolu itam la ñu gis ci Sénégal fi nu wër yépp bis bu nekk gis ngeen nii muy guddi muy bëccëg muy naaj muy taw c'était phénoménal ci taw yi da ngeen ñu gis ay parasol nit ñi na ñaan du ñu dem parasol la ñuy yore nit ñi taxaw ni du ñu dem nañu wax ak ñoom ci biir taw yi loolu wane na ni sénégalais yi taxaw nañu sénégalais yi déglu nañu sénégalais yi xaar nañu ñu wax ak ñoom ci li nga xam ne si moom la ñu bëgg soppi Sénégal alors loolu sénégalais yi wuy si nañu ci ndax dañ leen waxoon jox leen ñu majorité majorité bu nga xam ne si bu ñu ko amee bu ñu demee assemblée nationale coalition benn Bokk Yaakaar bu président Macky Sall dootu fa am majorité biñ ko defee bi ñu demee ba wote ba pare gis ngeen wote bi ni mu demee malgré malgré difficulté yi ñu amoon yëpp malgré li nga xam ne sii lépp nguur gi def na ko bàyyiwuñu bi ñu defaree suñu liste yi ba noppi xam ngeen gis ngeen li ci topp ñaata responsable opposition bi ngeen dégg ni ñu ngi leen di recevoir pale am na ñoo xam ne ñi ngi woon ci suñu liste yi sax rocci nañ leen recevoir leen pale ñu def ay déclaration wax ni ñoom àndatuñu ak Yewwi wala àndatuñu ak Wallu loolu yëpp nekk ay difficulté teewul bi ñu wotee opposition am na majorité benn Bokk Yaakaar amul majorité gis ngeen ko loolu nag malgré li ñu def lépp gis ngeen ni tey jii nii Bouradieu nii dégg ngeen ko dans le nord expert yépp tey jii nii étudier nañu tey jii boo gisee analyse yi ñu def dañoo analyser population Matam Podor boole ko évolution boole ko ak évolution électorale bi wane ni li fay wote warut a mën a nekk gis ngeen ni sunu mandataire intercoalition bi Déthié Fall def na recours ci loolu. ñu yaakaar ni loolu recours boobu dana aboutir te bu aboutiree ñaari baat yi ñu ëppalee sax dana gën a wàññeeku ci ñoom kon boog di wax ni tey jii ci tey victoire opposition moo am sunu boolee li waa opposition am benn Bokk Yaakaar amul majorité waxuma la sax majorité relative wala majorité absolue liñ leen digoon ñun ni leen sunu mbir mii bu fekkente ni Sénégalais yi dégglu nañu danañu am plus de 93 députés xam ngeen ni bu dul woon yenn juumte yi am Louga Diourbel Bounkiling Linguère Mbour nga xam ni si dafa am ñoo xam ne si waruñu woon a wote wàllu ñu wote fa wàllu wala ñoo xam ni waruñu woon a wote yeewi ñu wotu fa yeewi bu du woon loolu tey kenn waxatu ko ndax boo boolee li nga xam ne si moom la fa intercoalition am ak li nga xam ne si moom la fa bennoo am boo ca boolee ña fa juum watee ci wàllu mbaa ci yeewi gañe woon nañu gars yi bu yàgg kon book sunu système bi ñun lañu ci doon xaar dikk nañ ci malgré la am nañu majorité kon boog li des ci opposition bi mooy ñu gën a booloo jàppoo gën a booloo jàppoo ni nga xam ne si wàllu ak yeew yi def nañ ko sunu yeneen naataangoo yi nga xam si ñi ngi ci yeneen coalition yi ñoo bokkoon li ñu doon wax ci biir campagne électorale bi dañu doon campagne pour ñu am assemblée nationale de rupture dañ doon campagne di wax sénégalais yi comme li ñu doon wax ñun dañoo bëgg changement ci assemblée nationale bi sénégalais yi woteel nañ leen kon boog ñun ñu les invitons ñu ñëw ñoom ñëpp fekk si ñu ñu àndandoo mu nekk le grand bloc de l'opposition su ko defee li nga xam ne si wax nañ ko bëgg nañ ko ci assemblée nationale bi mën nañ ko ca def ci loolu itam ci loolu ci la ñuy bu ko defee li ñu bëgg assemblée nationale ñu mën ko fa am ci loolu la ñuy wax ni programme yi benn la mooy changer réew mi doxalinu réew mi réhabilité waxoon nañu ni ci lañuy ci système boobu ci la ñuy mëne bu ñu amee majorité bi ñu mën a defaraat li ñu war a defaral Sénégal loi yi nga xam ni si baaxuñu ñu dindi ko loi yu yu beneen loi bu nga xam ni si waru fee nekk du fi dem ci système boobu la ñu mën a am majorité bi bu ñu ko taxawalee àndandoo ci la ñuy mën a réhabiliter suñu frère Khalifa sàll ci la ñuy mën a réhabiliter suñu Karim suñu frère may sa Wade delloo leen seen i droit civique ba nga xam ne si dañuy mën a préparer bokk ci élection yi di ñëw ndax élection 2024 assemblée nationale bi moo koy préparer moo koy organiser bu ko defee Sénégal am jàmm bépp loi bu nga xam ne si am na fi te war nañ koo changer ñu changer ko ba nga xam ne si kenn dootul dal ci kaw opposition sur n'importe quel prétexte ba nga xam ni si citoyens yëpp danañu mën a recouvrer seeni droit ñu mën a dem à des élections 2024 apaisées fekk na nag on aura arrêté la dérive à l'Assemblée nationale parce que loo xam ne si wate war nañ ko fa ci loi boo xam ne sii war nañ cee revenir ñu dindi ko te itam kenn dootul def ci Sénégal loo nga xam ne si loi la booy xam ne si day yàq Sénégal ak di ko tas loolu moo tax ñuy woote di wax di woo opposition bi yépp seen unité nañ ko reconstituer woote boobu yamale ko rek ci euh, euh, coalition yi nekk opposition même député yi nga xam si ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di wax ni nañ ñu rejoindre su ko defee suñu majorité mu nekk majorité bu infaillible bu nga xam ne si day mën a def li nga xam ne si war na ko def ci assemblée nationale. di wax rek ni ñu ngi yokk rek di gërëm di sant waa Sénégal yépp ci seen taxawaay bi nga xam ne si taxaw nañ ko di wax ni treize quatorzième législature bii ci histoire du Sénégal. mooy législature boo xam ne sii dañ koy dugg ak parti au pouvoir minoritaire loolu nag il faut que l'opposition xam li nga xam ne si yàlla jox na ko ko tey kenn mësul xalaat loolu dañ daan wax majorité mécanique majorité mécanique tey jii amatul on ne peut plus partir ça c'est c'est derrière nous opposition liggéey na ci terrain bi defar nañu des mécanismes infaillibles nangu nañu député yi ci benn Bokk Yaakaar ba tey bu ñuy dem assemblée nationale dañuy fay duggi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 c'est bien. waaw. Ah, ah, waaw ci wolof bi euh, damay wax rek nii euh, damay wax rek nii euh, résultat officiel yi tableau bi nga xam ni si moo génnee conseil constitutionnel dafa wane ni coalition wàllu Sénégal dafa am 16 ci siège majoritaire am yi wane itam 8 ci proportionnel. wone ni coalition yi dafa am 39 ci siège majoritaire yi wone 17 ci proportionnel bi loolu boo ko boolee muy 80 ma wax rek ni lii mooy li nga xam ne sii dañuy xool ana ñi wote wàllu ana ñi wote yi ñooñu loolu mooy résultat administratif bi wante nag résultat politique bi moo di nii foo gis ni wàllu moo fa gañe fekk na bokkaale woon na ay député yi foo gis ni yi moo fa gañe bokkaale woon na ay député wàllu par exemple boo jëlee Kébémer ñaari député lañ fay gagné wàllu moo ko gañe wante benn député bi yeewi la benn député bi wàllu la boo jëlee Mbàkke juróomi député lañ fay gagné da ngay jàpp ni ñaari député yi yee wàllu la ñett yi yeewi la boo ko toppee donc député yépp ci Sénégal nga wàcce ko dëkk bu nekk département bu nekk nga xool ñaata député lañ fa dugal ñaata député walu la ñaata député yeewi la boo paree loolu décompte bi moo lay jox 19 euh, députés dans les départements pour wàllu plus 8 au niveau de la liste pro ci liste proportionnelle bi mu nekk 27 plus 53 ci yi mooy def 80 su ko defee ñun suñu intercoalition 80 député yu mu am dara du ci changé mais ci répartition interne bi loolu lay joxe. loolu mooy wone xarañ gi nga xam ne sii defoon nañ ko ba nga xam ne si liste bu nekk boo xaale na moroomam foo dem rek intercoalition bi moo fay gañee te liste bu jënn rek fu ñu gañe rek am na loo xam ne si wàllu moo ko cay moom am na loo xam ne si yeewi moo ko cay moom loolu moom moo taxoon ma ni naa leen ko préciser ndax boo ko expliqué wul le résultat politique kenn du ko xame noonu kon loolu la kon maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam à CTV, la chaîne des patriotes.